Thank you salaam waaye yow kii awa saw dëkkandoo puissance kaay leen ba ngay rappel yow ngeen baal ah. parce que damaa am war a dem ci liggéey bi may defi léegi nag ma bëggoon ngeen dimbali seen jëkkër yi ndax seetaan télé kese du métier toog jàkkaarloog télé suba ba ngoon seen jëkkër yi dang dang dang dang ba bëgg a dee ñëw indil leen coono googu te lu leen jox ngeen xeeb ko loolu tam du arrangement ma bëggoon yow Kaja ak awasaw Saw marché yi soriwul leen kii bu yoree saako kii yoree saako yow boo ci defee ay ñaam bi carotte su yow nga jël basante ak yu sew yooyu kànja ak bisab bo mënul riij kañ par guddi sax nga génnee fi nit ñi dinañ ko jënd ah kon baax na yow ki puissance yow nga dimbali sa jëkkeer ji ta xaaraan bu bari bi du baaxul day infecté sax sa jëkkeer bu koy xaaraan ni moy ki day lancer biir bi dama bëggoon nga dem syndicat ndax syndicat tamit mango yaa nga fa yeneen saa yi nga dajeeg Foussa sax am na mair yi saam boo jëlee ci saam partagé ñëw jënd ñëw jaay du gën nga dimbali sa jëkkër waaye tamit jom nga baal ma dëkkandoo lenn de bëggoon naa la kaa wax paiement sale kii bi loyer bi nay gën a di kii bi day gën a di gaaw waaye yow sa bos day bar lool waaye ndax yow tamit sama mag gi moo la jox li ngay dundee te boo fayul doo lekk naan geeg lépp foos bi su feesee sax dégg nga maam doo doo kii participer kon duñu ñu del fay normal te bàyyi dugalante bi dugalante bi du ñu waa man bu ma demee fi may liggéey bu ñu ma gënee embauché sax dinaa la xaw a dugalal dara fay bi di gën a gaaw. jërëjëf kontaan naa ci waaye man it ma lay ñaar rek yow boo demee te maandu téye sa làmmiñ dugg li si sa yoon nekk dégg nga góorgóorlu bu baax man boo ma jàppee mag rek ma jàppee mag ñu ay noon dégg voilà. mais man doom yaay loolu jaaxaluma de xanaa boo amee liggéey bala ngaa dem sax ma mii mag nekk yow ci kër gi nga tàgguma bala ngaa dem. waaye yow man nitu bët laa te yow làmmiñ bu ñuul baaxul asatuma laat bu xonq man maa lay cat ah waxuma loolu de waaye bii dangay am dégg-dégg nag du ma arrangé ah maman de boo demee dinañ la namm bëggoon naa xam foo nekk nag ndax léeg-léeg ñu seet si doo ma mën a ñëw seet si yéen ñaar ndax ndaxte nekk naa fi sama néeg bi bu ma lekkee nii man la café bu ndaw sax defaroo leen ko xanaa sax suukaru koor oh, sama yow kuy dem bu metti maa ngi dem sa bébé mama ma nga jëm yàlla mayu ma da ngeen a dégg ñu muur ma wala dañ maa mayee ci jàpp ji bu ma doon tojal damay liggéeyi laa wax waaye kay déedéet déedéet yooyu seet lañ koy woye moo naa ji bu baax waaye mama alhamdulilah rabbil alamin. boo la damay naa rek nay mooy toog soo noon. mais vraiment liggéeyu ci kër gi lu tax ngeen koy defati ci weeru koor la. la la doxuwaat eh dama ne la taxawal nii sa saal nga taxaw nii yow koy seet engagé nga sa bopp de yow lan la moom mën koy seet di jaay français. engagé nga sa bopp laa la wax. c'est quoi li nga gis la c'est quoi ça. ana papis laa la laajte. déggoo ma de kër gii maay ki fiy seef maay baatare gauche di baatare droite man rek ci jee yee dugal yow yow ku osé nga ah la tànk mu yabaate ba bëgg a fii maa fay seef Pape Bés maa koy li mu bëgg waaw maa koy taajal ay ndog yu baax. ba di daagu ba muy moom di ko defal ay kafe yu toog di kafal moom. laa ilaaha illallaah njarum nag bu ndogoo ba pare mel na ne àjjana <laughs> war na la te du la wàcc xam nga toog nag mel ni ku ñu invité nga.

mais ki lan la war a ni, ba nga tang ni man lool la bëgg xam. ñew na fi daal mu naan ma. mo lay jambal mo lay defal moy la fa mu baax moy la fa man li jëntiwuma lool mom tay la fi ma fou de ça. moom taaw dong la fombagul de tay di tay, taw la fombagul lan la ma jambal lan la fi defar soxna ci man xam su xamuguma sax mom turam yow lo wax sama soxna si nii commencé tang eh yow la waxal waxal ah. Papi c xam la la bëgg. lu mel te léegi léegi lay doon ah. la kii na jug abal ma sama kër. sama kër ci biti. kii kenn waxatul loolu kii moom kenn waxatul ay wax génn kii moom dañuy am. am nga fi benn fan nga bëgg a sama kër non du yow danay dem non gis bëgg kii ba mu commencé dalee ànd ak moom ba léegi am musuma gis tàngaayam. aywa non ma rek. ma wax kër gi dama fay bàyyi wax du rëy rëy soo àggee nag. Nang nga ko jéem a defaraat ndax munoo fexe benn fan di bëgg maa jaxase sama jabar non loolu mënta nekk non mënta nekk. Eh, eh, eh. non jox ko ko. non kii moom teel yow. aywa dimbali ma ba taxi sama kër ok. aywa rest. aywa na ma laisse pas tout seul ici c'est toi reste tranquille. xam ni muy def ak yow naa la bàyyi soo paree kon nga delloo ma sama buntu. aywa patron dimbali ma fee dama sama xol wax du rëy xanam da demoon na bay neex. bu mu gadoo waa wax ju rëy de fu ma dem moom ma fa indi lii xam nga ne xewalu diine maam yàlla gi aman ko ñoom mu nee fu ma yàgg nag baa ma bañ faa yàgg nii wërsëg nar ma faa dab sama lim may nettali dafa garaaw laa koy joxe fay leen saay sax mu am facture ah, yow assassin nga parafin nga ah. eh fa fekkaat buntu bi de. waaye loy def sama neeg bi yow. génn fi eh déglul yow yo la la ma jam na fek mo sama neeg na ma genn yo sacc nga ah yow déglu ma. eh, eh xam nga ah. sa bop ma ne la ngay genn ci bit kan ngay genn ci bit yow xew lu xew. eh wala waxala ki wa ki kii kañ la ñëw sax moom tamit. ñëw fi fekk ma ci buntu bi ci néeg bi dama fokk naan ma génnal. génnal yow génnal moo gën sa wax ju bëri. ci génnal ci biti. waaw yow kañ nga demoon kañ nga jëm moo ma jaaxal. nii ngeen ma gisee nii. Ah, pardon. Eh, génnal si bi waaw man damaa xamul sax kañ la fi maman yow ci suba nga tàggoo woon ne dangay liggéey ji balaa ngoon nga dikk yow sa yoon na mën a njombe nga fa def waaye ci amul lay wax ak moom parce que lomantera dangaa génn rek ñu fat ko sa yoon ñëwu si yow ñaka jekk ma xam nga dëkkandoo danga te kër gi daa wér ñu wut beneen dëkkandoo rek saliba yow la la lu xew kii moom mi ngi fekk may nelaw mu fëgg naa ma génn léegi waaye yow xanaa yow tàggoo woon dangay dem liggéey yéen dama leen a ci wax ji wala dama leen a wóolu. bi sa yoon newu ci yow sa néeg bi nga amee yow dugg bi ngay dugg sax dañ koy arrangé dama taxaw ne ba génn ci wax ji du ci génn yoonam mi ngi ci. yow eh génn ci néeg bi laa la wax. <laughs> yow eh, eh, eh yow yaa waxoon ne ngay wax fii. ñu luwee néeg bi. leer na ma ne njombe la fa def moo tax ñu jël yow kay góor ah, nga. ah yéen engagé ma de. What? What? What?